recours bi li ko indi mooy dañu ñaan cour suprême mu daal di neenal décret bi nga xam ne Macky Sall jël na ko décret bi indi coow mi ci réew mi parce que décret boobu moom moo neenal décret bi Macky Sall convoqué woon corps électoral bi Macky Sall jëlee décret neenal décret convocation corps électoral bi looloo bloqué yëpp ba indi coow bi nekk ci réew mi si loolu la assemblée sukkandiku ba jël loi boo xam ne teguñu ko fenn ba nga xam ne dañu ne dañuy yóbbu élection yi décembre deux mille vingt quatre yokk mandat euh, Macky Sall ba décembre deux mille deux mille vingt quatre loolu la ñu attaqué tey déposé recours recours bi nag du bii benn recours ñaari recours lay doon parce que bii dañu attaqué pour que ñu annuler décret boobu waaye comme yenn saa yi cour suprême liggéeyam dafay xaw a yéex dafa am beneen recours buñ si ñambaas boo xam ne moom moom dañoo ñaan cour suprême mu aj effet wu décret d'abrogation bi de telle sorte que bu ko ajee décret bi mu convoqué corps électoral dafay dundaat ba ñu mën a reprendre le processus électoral donc am nañ yaakaar lool que cour